mu nga combat bu nga xam ne El Hadj waa parti démocratique dañu ko porté te dafa mel ni fi ñu teg seen tànk dafa dëgër. dafa am lu ko jiitu. Mhm. sélection bi moo indi lii yëpp saway dëkk boo xam ne du ñu organiser élection. que li nga fi wax ni sànq noonu yëpp doy na waat. non mais sélection rek la ñu teg ay système yoo xam ne yow leer na la ne di nga maîtriser bagage yi di koy def di ko def di ko def di ko def ba yegg si na boo xam ne da ngay laal hmm. am lu la rëcc. sa kër ga ji sax léeg-léeg dara xew fu mu rëcc la entreprise man li ma gëm li ma gëm mooy am na loo xamante ni nii dafa rëcc Macky Sall loolu mooy dëgg. mu dem ba maîtriser am foo xam ne dem ba nga xam ne yow maîtriser too mais koo xam ne weer dese pour nga dem ku lay ragal koo fi mën a ndox euh, euh, dëkk koo fi a koo fi boo gisee mu naan leen waxuma bii waxuma noo lan mooy nguur ak xam-xam lan mooy doomu aadama moo tax ca fajar bu ne woon bokkatuma non kon heure bi Macky kenn waxul ay mbiram léegi nag fi mu nekk nii nit ñi dañuy am indépendance mais dama ne coow li coow li mooy sélection bi moo indi lii yëpp te sélection boobu nag mhm. ñii nga xam ne tey ñoom ci li ñu ci baree bari am nañ ci bare responsabilité sélection bi mooy lan parrainage bi la assemblée lañ ko doon voté moom mais dañu xënti dëgg. Mhm. yow local yaay xool ñan ñooy dem. éliminé wuñ fi ay nit ci local ay liste ñun suñu liste boobu bis Pikine dañ kaa éliminé. député éliminé wuñ fi ay ay kii ay liste. Bougane daa bokk ñoom Sonko dañoo bokk. Mhm. liste majoritaire yooyu dañoo bokk. nga ñëwaat encore présidentielle. Karim Wade jàllul woon deux mille mhm. man sekk man loolu rek moom moo ma xaw a jaaxal. wala kon conseil constitutionnel ñoom dossier xanaa duñ ci enquêté mais conseil constitutionnel ñoom dañoo waxoon deux mille dix neuf ne Karim Wade sénégalais la benn. léegi deux mille vingt quatre nekk ñaar eh déglu ma parrainage téyewu ko. Hmm, jàll na loolu. déedéet Khalifa Sall parrainage ko waa mais lan moo xew ci diggante bii nii bañ ne ko yow doo sénégalais wala diggante deux mille dix neuf ak deux Karim dafay nekk français wala ñoom enquêté wu ñoon conseil constitutionnel ren gis nga boo bëggee dégg dëgg. ñoom ba ñu fay dafa yàgg. waaye balaa loolu nag sélection bi moo indi lii. Macky Sall ci boppam na bàyyi bu élection jotee booba na muy xool ne ñii ñoo war a bokk wala ñii waruñu bokk. nit ñi ay sénégalais lañ. képp ku ci am fanweeri at ak juróom. remplir les conditions là. mais ay condamnation définitive sax amu fi. bi ko wax ñu bëgg a yëkkati dara gaa yi toftal ko sa kër. am nañ teg seen yoon ñoom lan lañ fi waxoon tas. Mhm. parti fukki weer ak ñaar tu deviens inactif. te Diomaye ngi ci ci biir. ah kay. voilà. ah kay tànn Amadou Ba daal mi ngi bëgg a bari lan moo xew ñu dem ba ci biir ba pare kaay wax la benn ci am. Mhm. boo xam ne ñu bëri ñemewuñ ko wax. Mhm. wuy ma muy opposition comme di. gars yi ñu moo bari. ñi bokk intérêt jamono ji. ñi bokk intérêt jamono ji. dafa am fu ko wax ci kaw. ñii dinañ ko wax ci kaw. am na ñoo xam ne ñu ngi toog ñu xel ne kenn du fi reporté buñ sañoon ñu reporté suuf. Ah, waaw gi ci waaw waaw gi ci suuf ak déet ga ca kaw. Ah, kay waay ayca ñu foofa nag ñu dem assemblée nationale ndax ay député yu nga xam ne dañoo rek adopté jëm ci euh, modification loi bi ñeel taxawalu ko of nag ngir xeex wàllum euh, ger mu mel ni it projet la bu nga xam ne ni ministre des finances ak du budget Mamadou Moustapha Ba daanaka moom moo ko doon défendre ñu ne dañuy renforcer mbooleem sanction bu nga xam ne daanaka euh, dañu ko teg ngir ku ñu joxoñ baaraam ci lu ni mel ñu teewlay kàddoom moom Mamadou Moustapha Ba. en ce qui concerne le renforcement. indi nañ ci ay coppite yu bëri bokk na ci lu jëm ci wàllu garde à vue yi ñaareel bi moo wundu lépp lu jëm ci gel de fonds wala ressource ci ku ñeel ki nga xamante yi ni la ñu toppee ci moom indi de corruption ak yeneen yu nu mel yu am solo yi nga xamante yi ni projet loi bi da koy jël bokk ci lu jëm ci wàllu enregistrement illicite ak it mandat ñi bokk ci OFNAC jëlee nañ ko si ñett yóbbu ko ci juróom ndax dañoo jàpp ni ngir ñu amalee lànke du jaar yoon ñetti at mën na tuuti lool fokk kon ñu defaral leen ba ci juróomi at renouvelable nag benn yoon. Nous avons proposé des national la ñuy desandi gannaaw of nag boobee euh, loi bi nga xam ne moom mooy imposé yenn kilifa yi ñu def seen déclaration de patrimoine loolu it am na ay modification yu nga xam ne def nañ ko fa ndax dañu ko bëgg a yaatal donc euh, Mamadou Moustapha Ba ba tey ci ay kàddoom ñu teewlu ko Abdoul Aziz Sow da baax et au niveau li jëm ci OFNAC coppite yi ñu fa indi ñeent la waaye nag li jëm ci déclaration patrimoine coppite yi mun nañ ko dëxëñ ci ñett dañoo gën a dëgëral daan ci ñi nga xamante ne ñoo war a def déclaration de patrimoine moo xam déclaration bu incomplète la wala bu jaarul yoon wala déclaration bu nit ki def teguwul ci dëgg ci projet bees bi lu ni mel la bokk na ci itam ñuy fësal wala di publier saa su ne ñi nga xamante ne ñoo nekk ci yoon def seenu déclaration de patrimoine ak list ñi nga xamante ni ñoom dañoo lànk ndaare ni duñ ko def loole yëpp kon bokk na ci li nga xamante ni projet bu yees gi ëmb na ko. régulière de la liste des assujettis en règle et celle des assujettis défaillants. mu di liggéey bi ñu doon amal démb Mamadou Fofana sa assemblée nationale muy fekk si tamit liggéey bi nga xam ne war nañu ko amal tey jii mu di plénière bi lépp euh, aajow ci mbirum guerre. waaw lépp ci mbirum guerre la aajow c'est vrai que Simon mi ngi koy rappelé sànq ma ko ma bëggoon ci. Mhm. kaddu mu di ne boo xoolee daanaka li war xew tey moom nañ doon waxtaanee démb pratiquement. Mhm. parce que moo boo xoolee débat yëpp pratiquement tourné autour soutien wu. Euh, APR ci lu jëm ci li nga xam ne moom mooy euh, mise en place euh, résolution de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire ak résolution bi nga xam ne moo jëm ci motion de censure alors loolu noonu c'est bien ñu ne woy of nag nañ ko yokkal prérogative il faut renouveler l'équipe peut-être même si c'est une seule fois il faut ñu gën yaatal ñi nga xam te ne ni ils sont assujettis justement à la déclaration de patrimoine c'est bien mais tant que amul ay sanctions yoo xamante ne nii brandir nañ ko teg ko ci ñoo xamante ne nii justement on les ni nga koy nommé c'est des wala ñi nga xam ne c'est des gens réfractaires justement à cet exercice là mais loolu bu amul ñun ban tey jii nii yaakaar nañ mën a am ci ne OFNAC dina jouer pleinement son parce que ça pose mhm. problème Nafi Ndiaye Jaxate bi nga xam ne moom moo fi jógee balaa sëñ Bassirou Seynabou Ndiaye plutôt balaa balaa euh, Bassirou euh, Gueye di ñëw mais moom ci boppam ba dem nee na amoon na une soixante kii na la tuddati euh, soixante dix document yoo xam te ne nii yu ñu enquête la ba pare ba jëbbal ko procureur est-ce que xam nga tey la moo ci mujj mais loolu est-ce que tey jii nii mun na tax nit ñi optimiste par rapport ak doxalin bi nga xam te ne nii moom la of nag war a doxee ci boppam bu fekkee ay sanctions amul ngeen ne wéy nañu élargir champ d'action nañu élargir ay prérogatives am nañ leen gën a may doole et mais bu fekkee ne ne c'est pour rester à l'état y a amul njëriñ pratiquement et loolu daf ni kiyaat indiwaat suñu xalaat tey jii nii quelle et la pertinence et l'opportunité bi nga xam ne moo taxoon ñu taxawal OFNAC ger gi tey la gën a yokk mi ngi ne mel ni tukk sa benn saañ ba dee ñu ne tedd na waaye aussi amul benn loo xam te ne nii tey c'est des mesures de coercition yoo xam te ne nii tey dina mën a tax au moins ñu mën a endiguer ce mal là et tey jii nii le mal perdure ba dañ naan Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne wàllum corruption nam sa mel moom kenn xamul nu mu toll donc man li ma gëm moom mooy il faut des sanctions mhm. il faut ñu jëm ci li nga xam ne nii surtout moom mooy li ñuy wax li yëpp jël ko ni ay mesures ñu appliquer ko à la lettre bu ko defee tey ñu mën a peut-être résoudre ci li nga xam ne moo jëm tey ci création OFNAC ak ses prérogatives yi nga xam ne mu ngoog euh, euh, Simon Pierre Faye mu mel ni kon Transparency International dafa fekk si Mamadou Fofana Thiam mu wax xeexum guerre gi fii ci réewum Sénégal en amuñu note bu baax de 43 am moo di indice perception bi ci atum ñun Bénin ak Ghana ñoo bokk atte ndax ñoo ngi ci zone rouge bi euh, rapport bu ONG Transparency International dañ ci ànd ndax Fatoumata Diop. Sénégal bokk ci ñeent fukk ak ñett ci édition bu rapport bu Transparency International jege ci Afrique nag somali ak Sud Soudan ñoom ñoo jël onzième ak treizième place bi ci téeméer ak juróom-ñetti fukk ci dëkk yi mu nekk premier ak deuxième ci Afrique indice bi loolu la xamle indice de perception de corruption ñoom dañoo njort ne dëkk yi ger dafa bari ñoom nag bokk na ci indicateurs yi nga xamante ne wax nañ ko ci secteur public ci àdduna bi ñoom nag téeméer ak juróom fukk ci dëkk yi nekk ci àdduna bi yépp la ñuy xool saytu seen niveau jëm ci wàllu ger ci secteur public bi fi mu toll waaye doona yoo xamante ne nag ñu ngi ko amee ci ndimbalu fukk ak ñett ci ay sources bokk na ca banque mondiale forum économique mondiale ak yeneen i kuréel yoo xamante ne ne score bi ñu koy joxe moo di expert ak personnalité yu monde yu yëngu ci wàllu affaire ci àdduna bi yëpp indice de perception de corruption bu at bii nag dëkk yu baree bari sax dañ leen képp ci wàllu ger waaye nag jàpp nañ ne itam dëkku Afrique yi lu ci mel ni Somalie Sud Soudan bokk na ca ñoo xamante ne daal duñu élève yu baax loolee la Transparency International xamle 43 sur ça mooy indice de perception bi moom xeexum guerre gi Sénégal des na de kon. waaw des na parce que boo jëlee à partir de zéro xëy na zéro amul mais un échelle bi un la ba cent Sénégal nag boo xoolee yi koy xaymaal parce que ay indice la maanaam lii nii am lii nii nga xam ne norme la war doon Sénégal fan la ci tëddee est-ce que am na ay institution est-ce que am na lii ban ban genre mécanisme la ñu teg euh, nit ñi naka lañ ko gisee parce que lii yëpp. c'est une perception c'est différent quand même de la réalité mais perception bi moo lay jox orientation bi nga xam ne peut-être jox la sax euh, benn mbir boo xam ne mën nga ko teg gët ci biir réew mi ci nan lay corruption demee ci biir réew mi donc not 1 à 100 Sénégal 43 la ci am ça veut dire am na lu mu def mais ba léegi des na parce que rapport bi da la ne deux mille vingt et un deux mille vingt deux ak deux mille vingt trois bii nga xam ne rapport bi moom la intéressé wu Sénégal même place bi la occupé puusul hmm. paasul et boo xoolee quarante trois sur cent points ça veut dire que yegguñu sax cinquante ñu sax ci xaaj bi bu doon école ñu ne amuñu moyenne. effectivement loolu de reflété wu ci rang bi nga xam ne moom la Sénégal toll sur les cent quatre vingt pays yi nga xam ne rapport bi intéressé wu na ci réew yooyee en tout cas dans dans dans le secteur public Sénégal mi ngi occupé soixante dixième rang. donc xaaju gu ñu également yegg ci sax moitié bi. Hmm. donc réew yi nga xam ne yegg nañu cent points am nañu cent points foofu moom dañuy jàpp ne guerre amu fa. ñoo moom xeex nañ ko lu ñu mën def nañ ci seen kéemtulaay kattan. Hmm. yar nañ ci également nit ñi yar ci institution yi ba dem ba établir ko comme norme. donc ñun Sénégal ça veut dire que am na lu bare lu ñu dese bon mu ngi intervenir nag ci jamono joo xam ne. Euh, euh, assemblée nationale ñu ngi indi ay modification lu mhm. jëm ci déclaration de patrimoine ak yeneen yoo xam ne soxal na wàllu corruption ak wàllu guerre parce que boo demee ba renforcer pouvoir OFNAC ça veut dire que peut-être déwén xëy na déwén bu rapport bi naree génnaat pour atum 2024 parce que euh, lii assemblée nationale def démb ñu ngi intervenir ci biir atum 2024 bokkul ak rapport bi nga xam ne 2023 la doon lijjante xëy na déwén dinañ amaat beneen point wala xëy na ñu bougé mais ce qui est mooy guerre moom fii ci biir réew mi moom mi ngi fi depuis trois ans on te dit que Sénégal foog mu ne woon bougé wul jógu fa donc il y a énormément d'efforts à faire yar ci nit ñi yar ci institution yi wutaat yeneen mécanisme gën a renforcer sax mbir mi parce que yooyu mooy contexte sur l'échelle internationale alors euh, euh, euh, El Hadj mu OFNAC doole juñ ko mën a yokk est-ce que tamit euh, dugg na a baax ñu koy bàyyi bu defee liggéeyam ba noppi teg ay euh, rapport am ñu def suivi bi. La CREI c'est pour eux. L'OFNAC c'est pour mhm. moom mais li gën a ndaw li OFNAC war a def li gën a ndaw. waxuma la sax ñoom amuñu ay prérogative di sanctionné yooyu moo tax seen seen kii euh, Nafi Ngom Keïta ne la euh, kële Seynabou Ndiaye Diakhaté ne la def euh, Nafi Ngom Keïta ku njëkk a wax sax defar nañu ay dossier te Seynabou Ndiaye Diakhaté waxaat na ko jébbal nañ ko procureur procureur c'est le maître pour poursuites dégg nga waaye dama ne mais li gën a ndaw loolu sax waxuma sax defar ay kayit di jox ki nga xam ne moom mooy toppee mais xamal lan moo gën a ndaw non déclaration de patrimoine bii ñu doon waxtaanee démb assemblée nationale képp koo xam ne dénk nañ la lu toll dañ égal ou supérieur à un milliard un milliard ah da nga war a dem def sa déclaration. déclaration de patrimoine. ñeen mars ba ñuy installé avril mai matul deux mois. man ngay ci laa dem of nag weccet bi ma jox amal kës néew ne leen mi ma leen mi ngi sama oto baa ngi te dinañ la laaj ñaata soxna ñaata doom lépp luy bien da jàkkaarloo ak gendarme yi ak ñoom wax leen ñu li enquêteur yi ñu wax la tout nga dem loo xamante ni manqué na kayit yi ñëwul ñoom ñoo lay koy fàttali sax ni waaw mais ñaata kilifa ñoom lañ fi dénk lu ëpp milliard ma mbay mais ñu toog ne demul demuñ demuñ maanaam ba pare sans gêne quoi affaire bi ñoom duñu la fekk sa kër dóor mënuñ lu dul peut-être kalaame la ak acquis de droit mais ñu toog nii ne carrément ñun ñu def déclaration de patrimoine ñi ah waaw déclaration de patrimoine doole duñ ko mën a yokk te amul suivi ñëwal nga wax ñu loo yor comme ça booy génn tamit ah nga waxaat yow lan yor ñu xam ñu xool bi nga fa nekkee ak léegi ñaata weer nga fa liggéey ak yow sa niveau de vie li nga doon dundee lii yenu na maanaam wala yenuwul maanaam mais képp koo xamante ni yow nekk nga ministre wala nekk nga nangam booy dugg amoo sa oto da doon lépp ngay génn nekk un multimilliardaire yor parking ñu waxtaanee kon leneen lu soxal bi la jotaay xibaar juróom ñoo mujjee gaañu sib tënk